boo amee sa sa jabar wala sa doom muy def lu bon muy njaalo wala muy fay nga wala sa jabar di fay nga yor koo xam ne daal day fay du nangoo toog ci kër gi nga bëgg mu toog ci kër gi nga bëgg rek yow mu toog ci kër gi te dootul dem bu dee def day day def lu bon wala muy njaalo wala moo xam daal lu muy def nga bëgg mu toog ci kër gi gis ngeen balu faftan ngay wut lii mooy balu faftan boo ko wutee na bind turam ñetti yoon ak turu yaayam ñetti yoon loolu dong ngay bind saafara lay doon tuuti nga bënn fii nga sol ko ci biir danga koy boolee meew nag bu fekkee mën nga am meewu xar buy nàmpal nga fexe ba am ci meew mi nga boole ko moom nga sol ko fii ci biir turam ak turu yaayam xam nga ñoo dugg ci biir xoolal yow fi nga bëgg mu toog fi bu dee ci biir kër gi nga bëgg mu toog fi gas ko ci digg biir kër gi nga gas ko fa suul ko bu dee si biir néegam yaa xam fi nga bëgg mu toog fa fexeel xam nga dakaar moom dafa bari ay tabax waaye na la jaral nga dajji karo nga def ko si wallahi képp ku ko def koo fi def dootul demati moom moom fekkee day dem rek mm, un deux trois mu fay dem si kër wala un deux muy njaaloo nga bëgg mu toog ci kër gi dootul demati fenn fexeel ba am nii turam ñetti yoon turu ñetti yoon nga wut meew li xar muy nàmpal nga def ko si nga gas tuuti saafara bi tuuti rek lay doon nga bënd fii nga sol ko si gasal ba mu xóot nga def si nga dem sa yoon nga xool